tey seen émission entretien avec dafa dellusi sunu gan mi tudd Moussa Bathily ne coordonnateur départemental du mouvement de doomu daaro patriote de Bakel ensuite président de la commission massification de du parti à Bakel kooku mooy sunu gan tey Moussa Bathily ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay doyen Demba Ramata ñu ngi lay eh, remercier encore ci invitation bi di nuyu sa technicien ak sa caméraman yi euh, di nuyu aussi euh, téléspectateur auteur euh, Evidence TV di ñaan yàlla subhaanahu wa taala lépp lu ñuy wax fii lu mu nekk lu xamante lu ñu jëriñ la jëriñ réew mi incha allah Koulé Moussa bàcc li ne Bakel Bakel nag jamono ji am na lu fa xew maanaam mbënn boo xam ne ci dex bi la jóge mm-hmm. Moussa bàcc li fan la situation bi toll waaw bon actuellement la situation bi donc mun nañ wax euh, nekkul comme avant parce que bu njëkk da doon avancé di dugg kër yi mais actuellement depuis démb ñu ne commencé na di euh, reculer di dellu ginnaaw mais ak boobu yëpp par exemple xam nga euh, foofu kër yi këru ban la ñu bëri. Hmm. am na ñu bëri kër yi seen seen dañ koy tabax ci ban. donc même ndox bi bu génnee danger la actuellement la village yu bëri kër yu nekk ci ban yi ñëpp a si génn. Hmm. même bëgguñu sax xale yi jege foofu parce que day màbb. beneen bi ndox bi du ndoxu naturel comme ça ndox bu xeeñ la ndox bi day ànd ak odeur comme ndox foos la mel. Hmm. donc yooyu euh, mu ngi reculer mais toujours effet yooyu. ba léegi euh, jan euh, askan wi mu ngi koy jànkonte bu baax aussi manque doo bi ndox bi mm-hmm. ba léegi ndox nit ñi dañoo soxla ndox lu ñu am mun a yónni ci ndox pour foofu population foofu dañ ko soxla voilà donc euh, parce que ndox boobu kenn mënu ko naan da nga gis teen yu bëri foofu dafa yàqu parce que xam nga forage lañ doon utiliser mais comme courant bi doxatut robinet yi doxatut donc nit ñi teen la ñuy la ñuy am na teen yoo xamante ne dañoo euh, euh, ndox bi dana muur ba pare am na teen yoo xamante ne ñu ngi doon fonctionner donc nit ñi loolu lañ doon euh, foofu lañ doon tànk mais du doy nit ñi aussi ndoxu teen ñu bëri munuñu ko naan. en tout cas daal ñun moom ak ñi ñu mag man maa ngi nii plus de quarante ans musuma ko gis. mësuma ko dégg mais comme ndox euh, situation bu mu amee paay yu njëkk yi ñu ne lii musoon na fa am ay 1960 yooyu xam nga 1960 yooyu ñi ñi ko fekkee bariwut ñi ko fekkee bariwut te boobu sax sikki sàkk la est-ce que bu mel nii donc parce que euh, ndox bi nu mu doon avancé musul am parce que ñu même ñu ne euh, mi ay temps yooyu 1960 yooyu. ndox bi da doon avancé ndànk ndànk ndànk mais lii ah doyen boo toogee sa kër da ngay jékki ndox bi di génn sa sa biiru néeg lu xamante kenn mësu koo gis ndox bi day da ngay jékki-jékki commencé néeg bi commencé ball ndox donc yu mel ni moom musul am sinon chaque année ndox ndox bi day avancé chaque année ndox bi day avancé waaye mu avancé ba dugg kër yi bu dugg eh, eh, eh, jël lépp donc mu mu ngi soog a am euh, suñu euh, li ñu jot a dégg ak lu ñu euh, jot a gis. voilà donc ñu ngi doon xaar autorités yi depuis nu mu tuddati affaire bi ba mu commencé donte tardé nañ. mais actuellement là gis nañ état bi mu ngi def effort même euh, bu président Ousmane Sonko mu ngi ko doon wax ci live am mu ne état bi président de la république monsieur Diomaye Faye euh, débloqué na huit milliards pour euh, ñi fa nekk aussi ay conteneurs yu bëri actuellement la moment bi may wax ak yow yegg si nañ mais liñ mun a wax foofu monsieur mba mooy Bakel yàgg na ni euh, état walla ONG di ko jàppale mais aide aide yooyu aide yooyu du yegg comme ñi ko war a jot donc man damay ñaax état bi huit milliards bari na euh, matériel yu yóbbu foofu mais huit milliards yëpp pour Bakel kese. huit milliards pour xam nga euh, mun nañ wax. Ah, voilà ñu xamante ne parce que ñu ne laal na côté Kédougou yooyu. Mm. mooy fleur bi fépp fu mu romb rek laal na. Mm. mais dagaay côté Bakel la gën a. méttee mm. aussi même huit milliards yi euh, monsieur Demba boo ko mun nga ko euh, gis ni nga ne lii bari na. mais boo demee boo tegee sa bët da ngay gis quartier boo xamante ni ay néegu ban la yëpp daanu imagine imaginel ndox ndox bu génnee ñooñu fan la ñuy dëkk li nga bay des un mois pour nga góob la ndox jël ko année bi douze mois la lan ngay def ba lekk di naan di sol ba kii euh, ba beneen ki bi beneen góob ñëw yëre yi bu ñu waxee kër daanu na wax nañ ay yëre dem na mm. aussi effet yu muy am ci maladie mm. imaginel ñaata ñaata jour lañ lañ nekk ci biir ndox mi mm. day ànd ak ay gunóor day ànd ak ay jaan day ànd ak xet day ànd ak lu xamante ne hygiène yu xam parce que foofu dootul set donc ban conséquence la war am côté côté santé wér-gu-yaram. Mm. donc yooyu yëpp boo xoolee huit milliards yi loo pour loolu la donc bëri na bëriwul parce que euh, dégâts bi moo gën a moo moo moo gën a métti donc euh, loolu la aussi euh, man li may ñaax état bi li may ñaax état bi mooy état bi ne veiller ci aide bu muy yóbbu. Euh, sinistre yi foofu buñ ko defut voilà buñ ko defut maanaam population bi duñ gis dara parce que yàgg nañ ko def côté boobu donc walla ci yii nii yi ñuy jàppale nit ñi nañ ko teg ay loxo yu wóor imaginel yow nga jël say say aide teg ko sa loxo adversaire bu ko yóbbee lan lay wax da koy utiliser contre état bi loolu ñun dañ koy gis donc yooyu yëpp ñu bàyyi ci xel buñ ci bàyyee xel rek incha allah euh, xëy na population bi dana gis euh, boppam ci loolu. waaw doomu Bakel yi ñoom fi mu lan mooy seen taxawaay. donc depuis affaire bi ba mu amee village bu ne daanaka dañoo mobiliser di def ay quête danga gis village yu xamante ne quinze millions danañ ko dajale da nga gis village yu xamante lu ëpp loolu. danañ ko dajale gis actuellement chaque jour ay bus ay camion ñooy quitté Tamba di quitté dakaar di dem foofu yóbbu ay ndox yóbbu euh, nu mu ay lekk yóbbu ay garab loolu mu ngi am doomu doomu foofu yëpp ñoom mobilisé wu. Hmm. di dajale yooyu yëpp di leen di ko di ko yóbbu donc taxawaay bi rafet na dañuy remercier le euh, bi di remercier ressortissants yi fi nekk patron yi am na ñoo xamante ne dëkkuñu sax Bakel mais. bu ñu déggee affaire yi dañoo mobiliser li ñu am yóbbu ko euh, euh, foofu. waaw ah, bu loolu weesoo. yow lan nga xalaat ne muy solution. voilà donc solution moom. Euh, ginnaaw yàlla ci loxo état la nekk état am population même buñ mobiliser di def seen yooyu noonu. dana dana xëy na dana soulager tuuti mais mënul faj lépp donc état moom moo am solution bi léegi man li may proposer mooy euh, mooy commencé nañ ko def mooy Croix-Rouge dem fa di génne nit ñi. ci mbënn mi aussi di faj nit ñi parce que am na ñu xamante ne balaa affaire bi di ñëw dañoo feebaroon euh, ndox bi ñëw yokk seen feebar am na ñu xamante ne feebaruñu woon mais ndox bi dañuy feebar am na ñu xamante ne daf dañoo am traumatisme parce que dégâts bi dafa rëy donc il faut que ñu mobiliser euh, Croix-Rouge ñu jox leen moyen ñu dem fa wàcc jàppale nit ñi buñ def buñ defee loolu aussi ñu comme ndox bi mu ngi commencé reculer am na yu xamante ne comme école yi actuellement bu état bi dugalul loxoom boo moytul janvier deux mille cinq deux mille vingt cinq sax pour ñu jàng problème lay doon parce que école yi nu ñu demee ak position bu nekk ci village yi ndox pour mu jeex foofu dafay métti. donc état bi dafa war a mobiliser sapeur pompier yi croix rouge ñu dem fa daal di euh, def euh, liggéey yooyu yëpp voilà loolu moo loolu laa gis comme bien sûr bu huit milliards bu ñu ko sàmmee buñ ko euh, bu buñ ko tegee di ko surveiller dana def lu bëri ci waa waa waa waa man li may tiit rek ñu toog yónnee affaire yi bàyyi. parce que même président ko am na yu mu wax démb euh, mooy euh, militaires yi ñu ngi def euh, di di di jàppale kii gis nga information yooyu yow da doomu Bakel wala doomu foofu da koy dégg mais pour nga gis ko dafay jafe xëy na yenn zones yi mun nañ ko def mais yenn zones yi maanaam dañ koy bàyyi su boobaa état bu joxee ndigal. il faut que ñu surveiller loolu laay wax ci côté aide bi aussi il faut que ñu surveiller foofu buñ ko surveiller wul danañ jël ed yooyu utiliser ko d'une façon contre état bi la. Hmm. loolu li lu ma leer la li ma gis la li may dégg la. Hmm. beneen bi mooy ñu tog ko même buñ ko mënee teg ci loxo militaires yi militaires yi jël responsabilité joxe ñi war a am. doyen Demba. xam nga foofu lépp a manqué dara nekk fa mooy maanaam su ma nee euh, dara nekk fa mooy lépp loo gis foofu doomu foofu ñoo ko def par exemple boo demee village yi da ngay gis école école bi waa foofu ñoo ko tabax da ngay gis ay daara ñoom ñoo ko tabax da nga gis ay ay ay poste de santé ñoom waa dëkk bi ñoo ko tabax da ngay gis village yoo xamante ne même kii faj nit ñi daneen wala sage-femme yi ñu def ko foofu di ko fay donc léegi jot na ñun mm-hmm. pouvoir lañ bokk léegi parce que bu ñu ne pouvoir lañ bokk ñun Pastef lañ nekk mm-hmm. te Pastef moo yor pouvoir bi suñu sañoon Pastef def benn affaire boo xamante ne depuis bu ñu jëlee indépendance mosul am doléance ñun bu ñu demee balaa ngay dem foofu amul yoon ñun amuñu ay yoon pour nga dem foofu avant mbënd mi yoon amul imaginez actuellement la donc ñun dañu am problème yoon amuñu problème yoon ñun dañu am problème eh, poste de santé yi boo jëlee département Bakel presque cent quatre-vingt-dix mille eh, eh, mètres kilomètres carrés mais hôpital bu niveau un doo ko am doo ko gis foofu donc su boobaa dañoo soxla état yi jàppale leen ñu bëri ñu ngi foofu amuñu amuñu euh, même formation booy am formation comme ñëpp donc yooyu yëpp dañ koy dañ koy dañ koy soxla ci état bi euh, lu ñu doon dund avant internat bi. dañoo bëgg incha allah avec euh, président Diomaye avec président Ousmane Sonko xëy na affaire yi euh, dana mun a changer. xoolal boo jógee Bakel pour dem Tamba nga ñëw Dakar sax eh, parfois mooy gën a yomb. mooy gën a yomb dafa sori te am na ñoo xamante ne pour ñu génn ci tali bi yegg si tali bi dem Tamba problème lay doon. donc yooyu noonu. Euh, doléance yooyu actuellement da nga gis ñun suñu village yi ba léegi jigéen bu bu buggee buy buy wasin bu buggee am doom mm-hmm. ñaata kilomètre lay daw pour yegg Bakel ñaata kilomètre lay daw parfois ñu jàllale ko Wuro Sogi wala Matam mm-hmm. jot na ñun aussi suñu zone yooyu ah ñu am hôpital yu baax école yu baax formation yu baax tali yu baax lépp am fa te incha mm. allah loolu la ñuy ñaan yàlla état bi defal ñu ko. bon yow da bokk ci Pastef léegi boo ñu doon def état des lieux bi foofu parti yeeg état major yi lan nga ñuy wax au niveau de Bakel. bon euh, au boo xoolee parti Pastef mu ngi gën a am doole foofu. Euh, xam nga ñun suñ zone yooyu. Mm. parce que dafa enclavé. waaw. daanaka état bi mooy yegg si par rapport opposition yegg si foofu mhm. mais depuis Pastef ñëw nekk opposition mhm. xeex nañ xeex nañ xeex nañ ba actuellement la commune yu bëri par exemple boo jëlee douze communes de Bakel yi communes yu xamante ne ñoo gën a ëpp électorat Pastef mhm. moo ko gañee mën naa leen lim ñaata commune euh, cinq communes yu xamante ni ñoo ëpp électorat à Bakel Pastef mm. moo ko gagné mm. commune de baalo commune de Diawara commune de Bakel commune de Moudéri mm. yooyu yëpp boo xoolee ah euh, euh, Pastef moo ko gagné yeneen communes yi état bi moo ko gagné pourquoi eh, eh, am na yoo xamante ne day dellu ci suñu taxawaay ñun parce que même élection yee passé pour ñu am eh, représentant yenn communes yi doo ko am. Ah. par exemple boo demee eh, commune de Toumbura Medina Fulbe euh, Fulbe. Hmm. Suncu Fissa yooyu pour pour nga am ku la ci ci bureau yi. Hmm. ah doo ko am. te donc foofu seen partisan mun nañ def lu leen neex. mais avec avec euh, euh résumé bi xëy na incha allah euh, dana changer parce que danañ am ay moyens yu xamante ne mun nañ am ay représentant foofu foofu doo am représentant tellement kenn mu fa dafa sori te yoon yi baaxut pour ñu ngi nga gis kenn mu représenté la donc problème lay doon même ñun suñ communes yi yenn villages yi pour nga am représentant foofu day métti. mais incha allah comme Pastef léegi gën gën naa màgg. incha allah euh, élection yi xam naa danañ dem gagné département bi bi yoon incha allah. di ngeen gagné département moom nga wax léegi sa leader démb dafa def benn live woo woote fële. arena arena waaw waaw le bi mu ci ci biir wax ji aussi xamal na ne Pastef militants yi ñoo war a jël en campagne électorale bi loolu yooyu yooyu yëpp noo ko gisee. mais parti politique loolu la war a deme hmm. xam nga état. parti moomu ko. Hmm. xaalisu état kan moo ko moom. état moo bi yëpp a ko moom. Sénégalais waaw. am na ñu far Pastef. Hmm. am ñu faru Pastef. aussi état xaalisu état bi pour yeneen activité la. pour yeneen affaire la. du pour affaire parti. waaw. donc Ousmane Sonko. wallahi li mu def ci politique Sénégal kenn mënu ñun actuellement histoire la ñuy dund. Hmm. parce que li musu waxuma Sénégal de Afrique musu fa am. Hmm. Hmm. parti ay ñi nekk ci parti bi ñooy financer activité parti bi. musul am. ñun dañ ko doon dégg fan Amérique. man de foofu laa xam ñi eh, eh, eh, ñi nekk euh, si parti bi. ñoom ñooy financé. Mm-hmm. mais guleet mu am Sénégal nga woote partisans yi génne xaalis financé activité parti bi loolu leçon bu xamante ne la histoire moo koy bind kenn mënu koo fàtte. waaw. léegi bu loolu xaalis bi mu wax nag wax nga ci léegi yow ban message ngay jox. waa Pastef yi fi mu toll nii. waaw message bi may jox waa Pastef mooy gën a mobiliser gën a jàppante gën a bàyyi xel parti bi. gën koo mm-hmm. dooleel. def mm-hmm. massification xam ni euh, c'est vrai yegg si nañ pouvoir mais li des suñu kanam moo gën a bëri moo gën a métti. Mm-hmm. te système bi fi nekkoon deewut dafa nekk à quatre appui rek mais deewut ba léegi mu ngi exister. il faut Pastef nu mu doon mobiliser avant. Mhm. gën a yokk. aussi ñu moytu politique politicienne yu xamante ne euh, mun na mun nañu rax. am na ñu xamante ne politique amuñu beneen métier. waaw mun nañu rax daal di ñu yi mhm. daa wala ñu rax ñu pour pour pour pour diviser ñu. Mhm. donc yooyu yëpp ñu bàyyi ci xel. ñu gën a takku gën a dooleel parti bi gën a taxaw su derrière suñu leader yi par mm. eh, eh, eh, président di parti mooy ki Ousmane Sonko. Mm. ak président de la République Diomaye Diakhar Faye mm. dañuy ñaan yàlla rek yàlla gën a woyofal yan bi donc euh, mobiliser wu rek incha allah surtout appel bu mu wootee le 19 Arena. donc euh, dañuy ñaan yàlla rek mu nekk réussite total hmm. te incha allah day nekk réussite aussi incha allah. léegi. Hmm. ci wàllu FMI. Hmm. FMI wax na ne gouvernement bi dafa war a jël ay mesures par exemple subvention ñu supprimer ko ak exonération sinon fi ñu jëm du baax te yow loolu noo gisee. waaw xam nga man euh, du may mais li ma mën a wax foofu mooy. Hmm. économie dëkk dañ koy tabax. waaw. doyen ba man dama lay joxe benn exemple rek. boo buggee boo buggee dëgëral. waaw. sa dépense. sa biiru kër. doo dépendre ci bor. Hmm. da ngay dépendre d'abord say pexe. waaw. sa doole fu mu yam. Hmm. mun nga dem léebi aussi boo bëggee am sa poche dëgër. Hmm. yu bëri da nga koy gis rek bëgg nga ko mais da ngay xam ni sa pas le moment. nga bàyyi ko pour def lu xamante ne moo gën a war. Hmm. donc loolu exemple bu ndaw la. xam naa donc président Sonko lu mu wax kenn. mooy boo bëggee yegg fenn yi bu bëri inutile wala bu eh, mun nañ ko bàyyi pour defar suñu économie mu gën a solide parce que dëkk mënul dem sans économie waaw ah, vraiment gouvernance mooy nga xam euh, say dépense fu muy dugg ak fi ngay jëlee xaalis mhm. donc mais dépendre yàgg na pour pourtant message bi du lu bees Ousmane Sonko yàgg na wax loolu mu ne FMI du du solution mais pe ñàkk pexe la donc loolu il faut ñu bàyyi xel donc su boobaa lu mu wax noonu du lu am la kenn mënu koo dindi waaw même boo xoolee eh, discours am économiste yëpp dañ ko rafetlu xanaa ñi par parloo rek mooy eh, opposition yoo xamante ne amuñu amuñu eh, lu dul seen organe de presse di wax rek li ma gis ci avenir Pastef ñiy opposé gars yi dañu wax cinquante ans mais man cent ans laay gis. Hmm. waaw. yaakaar nga ne Pastef war na def cent ans. incha allahu doon na wax cinquante ans de wala vingt quatre rek la def de. waaw mais Abdoulaye Wade dafa dafa dafa wàcc ay principam am. bëgg doomam. préféré doomam. yooyu ñoo ko dugal yenn yi. Hmm. loolu moo koy dugal yenn yi Pastef incha allah bu nekkee seen pré si si seen euh, euh, voie bi santa sax euh, danañ ko ah, paase. sept mois rek ngeen def ko moom de. <laughs> c'est pour cela sept mois li ñu def sept mois. am na ñu def douze mois def douze douze ans ñu ko. <laughs> Ah, loolu ngeen wax ñaata bor ñaata bor lañ fay. béykat yi étudiants yi. Ah, yow leb nga de six mois rek leb nga mil milliards. ci six mois. Eh, eh, eh, doyen Demba. kenn dàqu laa leb de yow mii. <laughs> doyen Demba. Ah. Macky Sall ñaata bor ah, na la total bi. quinze mille suñu doom yi war a judd suba sax. bor bi dala ah, am nañ bor yow sa rythme bi six mois mille milliards. un an six mois milliards. ma ne. bu ñu demee six ans dix mille milliards. doyen Demba. Ah. incha allah suñu résime bii. Ah. ah. waaw suñu régime bii <laughs> man waxuma waxuma nañu nañu xaar cinq ans bi rek. mooy balaa ah. deux mille dix neuf. yàlla fi yàlla bàyyi. mille vingt neuf. deux mille vingt hmm. neuf. incha allah population bi ñooy yokk doyut nañu yokk. Hmm. voilà loolu la ñuy ñaan yàlla incha te loolu day am. voilà. léegi nag élection yaa ngi ñëw ban message ngay jox population bi. ak acteurs politiques yi ak société civile bi quoi. waaw bon man euh, comme élection yaa ngi ñëw. Mm-hmm. message bi mooy joxe mooy nañ ràññee. Mm-hmm. xam nga élection euh, sa avenir la. waaw mooy képp kuy dem voter da ngay dem voter pour sa avenir. Mm-hmm. Euh, booy def sa avenir nag. doo ko parax paraxee. man ba may njëkk a usman Sonko. 2015 mhm. euh, la. waaw. laa déglu ay laa bu doon euh, def euh, message nii wala buñ ko invité télé. wala mhm. rajo. Mhm. laa ko doon déglu moo bàyyi ci xel. bu ñuy def législative 2017. nga ma lay wax lu am. 2017. ma def sam benn xarit mu ngi fii euh, prof universitaire la. Ah. ma ne ko bàyyil xel waa ji discours am buy wax. fekkee hmm. ñu ngi campagne. waaw. wallaahi ma ne ko bàyyil xel kii discours bu 2017. depuis boobu laa xam ni bii du caaxaan. donc booy dem élection. Mhm. dangay ngay ràññee kii wax ci xel. ak li yanu maanaa. Mhm. ak kii wax di di di sànni waxam rek. Ah. wax pour wax. Mhm. loolu laay dénk population bi. ñu xam ni. depuis de depuis mille neuf dañoo nekk ci benn régime. Hmm. régime régime bi indiwuñu lu dul ay povreté mooy ñàkk bu metti hmm. ñàkk jàng bu metti hmm. feebar yu bëri solution zéro waaw boobu yàlla def na sénégalais yi takku ba changer régime bi pour yaakaar nañ leen jàppale Eh, Cheikh Baara ñu ngi koy nuyu mu ngi doon wax boo joxee fetal pour nit dem rëbb bi yow indi doo jox bal yi keneen danga koy jox bal bi mu dem rëbbi ko rëbb ñëw donc jox nañ leen am na lu ñu leen jox ci pouvoir pouvoir des na assemblée depuis buñ ñëwee ñaata euh, assemblée benn Bokk Yaakaar yi ñaata projet lañ bloqué foofu hmm. ñaata donc boobu buñ ko joxut pouvoir bi. Hmm. léegi donc su boobaa mënuñu liggéey. kenn mënu leen hmm. juger après cinq ans. Hmm. donc damay ñaax population bi nañ ràññee xool discours yi xool parcours yi ba pare xalaat eh, eh, douze ans yu ñu passé. Ah. yan métit ak yan torof torof lañ nekkoon. Macky Sall lan la ñu def dugaloon. lan la ñu tegoon. borom kenn du borom njaboot yi kenn du nelaw ba hmm. donc su boobaa nañ ràññee di génnee euh, euh, di xool euh, discours Sonko yi discours Pastef yi hmm. parcours Pastef yi te loolu mooy bu baax bi ñu voté leen ñu jël assemblée pour ñu mun a liggéey réew mi. waaw Moussa Bathily waxtu woon ñu jagle woon jot na ñu ngi lay gërëm xanaa sa dernier mot. waaye sama dernier mot di. yeesal suñu euh, jàppale ci parti bi mm-hmm. di gën a ñaax euh, population patriote yëpp yu euh, département bi département de Bakel suñu commune yëpp commune de Balo ba commune yëpp ñu gën a taxaw ci parti bi mm-hmm. gën a ko gën ko massifier daal di dugg kër yi surtout ñun ci mbedd mi daal di dugg kër yi masaw leen que ñëw na état mu ngi ci yoon di leen jàppale donc état gis na dégg na donc ñu yokk taxawaay bi pour que incha allah législatif yi ñuy ñëw ñu ñu gañe ko aussi message bi may euh, lancé euh, wax naa ko sànq mooy état bi jàppale bu mu jàppale waa euh, sinistre yi fële ñu dëkk yi nag ci ci boor fleuve bi <laughs> ñu veillé ci bu baax a baax loolu lu ma soxla la ñu veye ko bu baax ñu xam yàlla loxo lañ koy teg ñu xam ñu xool est li ñu yóbbu yegg na loolu li may wax ci expérience laa koy waxee ci ci ci lu ma li ma gis li ma gis laay wax li ma dégg laay wax donc nañ veye sinon li ñuy def yóbbu yëpp ci phrase daal ko lay lay lay lay nekk yaakaar ne ne sa message état bi dina ko dégg ñu ngi lay gërëm Moussa li donc seen émission entretien avec mi ngi leen di dig daje beneen yoon.